قل الله أعبد مخلصا له ديني وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب خمغا نيجي نيكون تي ووتي yonante bi الصلاة والسلام ginnaaw bi ñu xamee kan mooy yonant bi lu tax yàlla yónni ko lan la yàlla wàccee ci moom ci wax yu ñu gisoon ci lan la doon woote gisoon nañ ne kon moom aleyhi salaatu wassalaam dafa doon woo ñi jëmaleen ci tawxiid da doon woo ñi jëmaleen ci ñu sellal jaamu gi ñel yàlla moom dong dadoon doon woo nit ñi pour ñu bàyyi bokkaale mu ne wooteem boobu nag kama qaala taala comme ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee sunu borom moom moo àddu ci loolu sunu borom moo ne qul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi shay'a waxal ne man de bu may ñaan sama boroom <clears throat> man de bu may jaamu sama borom duma ko bokkaaleeg dara kon gis nga alquran ci boppam mu addu ci ñu jaamu yàlla jaamu boo xam ni duñ ko bokkaaleeg dara wa qaala taala qul illaha abudu muxlisan lahu diini sunu boroom waxaat tey ba tey ne waxal nee leen yàlla képp moom dong laay jaamu jaamu goo xam ni dama koy sellalal diine ji yàlla képp lay jaamu yàlla dong lay jaamu loolu dalay won ne ak njaamu keneen amu ci cër du yonant du malaaka du saxaaba du wàlliyu du nit ku baax du jinné du garab du xeer du lenn lu yàlla moom la àq la boo xamante ni nii yàlla moo ko moom mu gàllu ci sunuy kaw ñun jami ñu war ko ko defal mom donc mu delluwaat mu ne wa qala taala qul innama umirtu an a'budu allaha wa la ushrika bihi ilayhi ad'u wa ilayhi ma'ab mu delluwaat ne sunu borom ne waxal ne man mi kat dañ ma digal déglul bu bax qul innama umirtu man mii kat dañ maa digal أن أعبد الله كما جامو يلا ده جامو جموم ده يسل ولا دو سل ده يرخ ولا دو رخ ده يبير ولا دو بير من ولا أشرك به تدو مكو بوكاله كون جامو جدا ورا سل دنج ما ديغل ما جامو يلا تدو مكو بوكاله واعبد الله ولا تشرك به شيئا جامو لن يلا تبولن كو بوكاله دارا gis nga ko kon loolu mooy li nga xamante ni nii moom la sunu boroom digle moom la digal yonant yi moom la digal yeneen mbindeef yi nit ak jinne mu ne kon ilayhi adu wa ilayhi maab ca moom laay woote jëme su may woote ca moom lay woote jëme te fa mom fa la sama way sama way ma nga ci yalla sama wote tamit damay wote jeme ci jeme ci mom wote jeme ci tawhid wote jeme ci jaamu yalla mom dong wote jeme ci yalla mom dong sama way tamit ci yalla la bu ko defé kon ñu tek fofu sunu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh